Babacar Sylla maa ngi lay nuyu. madame Moreau ñu ngi lay fay. voilà Babacar Sylla nga nekk euh, coordonnateur bu plateforme des acteurs euh, non étatiques euh, travaillant sur l'environnement euh, planète ñu gis ni nag da ngeen est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun déjà ci plateforme bi lan moo ko tax a jóg exactement. waaw planète dafa nekk kuréel goo xamante ni dafa boole ay organisation société civile ay organisation syndicale ay ONG ay institut d'université mais ñoom ñëpp dañu am benn euh, benn mbir bu leen boole mooy dañuy liggéey si wàllum environnement et ci wàllum environnement boobu ñun dañu tànn et puis lu mat euh, ñeenti at liggéey exclusivement ci gouvernance littorale donc loolu mooy plateforme Planète. Mm-hmm. yéen focus si si wàllum environnement euh, ñu gis ni bind ngeen benn euh, lettre euh, jëmale ko si njiitu réewu Sénégal Bassirou Diomaye Faye ci wàllum foncier bi si wàllum littoral bi est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci contenu lettre boobule. waaw dañu bind lettre bi ndaxte bi ñu defee suñu assemblée générale bi ñu xëyee le lundi. dañu dégg à travers les médias te ni lépp luy construction si wàllum littoral bi le président de la république joxe na ndigal pour ñu arrêté ko mu doon ndigal bu ñu rafetlu ñu ndaxte dañu jàpp ni loolu lu yoon la te dañ ko war a def euh, bi ñu ko bi ñu ko seetloo nag le treize bi passé ñu gis ni xaatim nañ benn arrêté arrêté boobu premier ministre Ousmane ko xaatim ko. Euh, di def ñi euh, nga xamante ni euh, maanaam commission bi nga xamante ni moom moo war a caytu loolu moo war a procéder à la vérification mooy au contrôle des titres mu wax ñan ñoo ci bokk kuréel yi ci bokk ci kuréel yooyu nag ñu seetlu ni ñu ñuy wax acteur non étatique organisation société civile hmm. amul kenn ku ci bokk hmm. ay institution de la république kese la ñu ne ah lii kat moom dañuy interpeller parce que mënuloo nekk juge nekk parti hmm. institution yu bari dañu tudd soit si ñi si titres yi foofu wala boog euh, ñu ne léeg-léeg ñoom ñooy bokk si ñi nga xamante ni ñu ngi bokk si processus d' attribution de titres yi ne pour ñu procéder à la vérification dina xaw a doy waar lool hmm. donc ñun si lañ ne dinañu am euh, dinañ bàyyi xel bu baax liggéeyu commission boobu noonu et rapport bi bu fekkee ni yanuwul maanaam ñun dinañ ko dénoncer parce que fii ak ñaari weer noom dañu war a jeexal seen liggéey présenter benn rapport donc ñi ngi bàyyi xel bu baax ñi ngi bàyyi suñuy bët ñi ngi bàyyi suñuy xalaat liggéeyu commission boobu incha allah. Mm-hmm. Euh, commission boobu ñu bëri aussi sax ñu ngi euh, xarab euh, membres yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commission ad hoc bi est-ce que yéen membres yi en tant que maanaam personne yéen daf leen di poser problème waaw wala déet parce que gis nañ ci ay membres conseil économique social environnemental ku si mel ni aussi Pierre Goudiaby Atepa mi ngi ci biir loo si xalaat. waaw ñun nag amuñu problème mu personne euh, amuñu problème mu personne ak kenn mais dañuy jàpp ni euh, bu mënuloo nekk juge ba pare euh, nekk arbitre mu mu mu non mënuloo nekk juge donc mënoo di arbitrer ba sujet bi on peut être juge et waaw donc bu fekkee ni nag da nga bokk ci jeu bi ba pare bëgg arbitrer jeu bi dina xaw a waar lool d'ailleurs loolu moo tax ñun. ñu nar a renforcer waat suñu vigilance pour que commission boobu li nga xamante ni moom la nar a génnee muy xaatim bi mu nar a def rapport bi mu doon loo xamante ni ñun dañ koy am droit de regard donte boo si nag te li ñu doon ñaan le premier ministre mooy commission yu mel nii bu ñu koy def le plus inclusif possible day gën ñu latiser large pour que acteurs yi nga xamante ni ñoom xam nañ ni seen combat combat de principe la et que du tey lañ ko commencé nee nañ la depuis lu mat ñeenti at plané mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi xalaat si lii mi ngi siy dox mi ngi siy wax mi ngi siy organiser ay atelier mi ngi siy def descente de terrain hmm. mi ngi siy organiser ay antenne locale à Saint-Louis dans les îles du Saloum waa Ziguinchor ñi ngi faral di jokkoo ak ñoom les îles jógee du coup ñun yaakaar naa ni ñun wala ñeneen ñu mel na ñun ñoo xamante ni ay ati ati at tamit ñi ngi si combat boobu noonu bu fekkee ni boo si tamit aujourd'hui waruñu toog rek war nañ bàyyi xel commission boobu noonu pour que li nga xamante ni moom la ñuy mu bu yanuwul maanaa ñu taxaw na. Hmm. est-ce que euh, tey jii aussi ñu lay laaj ko ñoo xam yéen da ngeen def focus ci wàllum environnement lan moo war a tax ñu protéger littoral bi hmm. lan moo war a tax ñu euh, protéger ko. Hmm. madame Moreau dañu war a sàmm bi parce que dafa bokk ci euh, li tubaab naan poumon vert. wu Dakar euh, aujourd'hui bu fekkee dañu agressé suñu forêt muy forêt de Mbao agressé technopole Pikine euh, littoral bi li ci li ci xew dañ naan kooku kooku crime la agressé euh, ginnaaw yi agression yi ñu def yenn poumon vert yi littoral bi moom li si li si xew musiba la parce que domaine public maritime bi nga xamante ni état moo ko teg daal di ni cent à partir des rivages maanaam vagues yi gën a fort fi mu yem boo si maanaam cent mètres si fa mu commencé ba cent mètres si kanam amul kenn ku fa war a tabax li ñu tabax dafa war a doon lu euh, euh, lu oyof loo xamante ni bi doon ko lu euh, lu ñuy teggi lay doon si lu gaaw maanaam lu démontable nga fa war a tabax ñu ne kenn waru ko jaay aujourd'hui bu ñu xoolee suñu corniche est ak ouest lépp li fa xew danga naan mais attends ana sérieux bi nga xamante ni mooy tax état bi di xaatim par la main droite après wëlbatiku di xaatim leneen luy violer li mu xaatim par la main droite par la main gauche gisuñu gisuñu ci sérieux gisuñu ci cohérence donc li tax ñu war a protéger littoral dafa bokk ci déjà ñu respecte suñu réglementation mais aussi littoral dafa doon féexlukaay dafa doon bërëb boo xamante ni jeunes yi dañ fay tàggat seen yaram dafa doon bërëb boo xamante ni tamit ay nit dañ fay liggéey les femmes transformatrices les pêcheurs les mareyeurs ñoo ñëpp seen lieu de travail littoral bi donc lii moo tax ñu war a protéger littoral bi mhm. euh, peut-être euh, dernière question euh, yan solution maanaam solution définitive yoo xam ni yéen yéen a ngi koy suggérer au président Diomaye euh, par rapport ak problème mu foncier bi ak problème mu littoral bi. Euh, waaw pour euh, le foncier sur le littoral dañuy préconiser di ko ñaan le président Bassirou Diomaye Faye mooy mu gaawal euh, ngir que suñu assemblée nationale moo xam bii wala bii di ñëw jéem a voté loi sur le littoral bi nga xamante ni depuis deux mille neuf lañ commencé woon liggéey bi waaye fi mu nekk nii boo koy laajte dañ naan la mi ngi si suufu taabalu secrétariat général du gouvernement bu yàggul ñun suñu plateforme initié nañ ay consultation avec des professeurs d'université yi nga xamante ni ñu ngi woon si ñu doon tëgg loi bi ay parlementaires yi nga xamante ni ñu ngi si actuelle législature bi ak yeneen kàngam pour waxtaanee ko fële si île du Saloum pour xam lan mooy blocage loi du littoral boobu noonu waaye blocage bi si gis rek mooy ñàkk volonté bi nga xamante ni régime bi fi génn amoon na ko ñàkk volonté boobu nag ñu ngi ñaan mu bañ a xew si régime Bassirou Diomaye Faye donc solution première bi mooy ñu voté adopter loi boobu mais surtout respecté ko et respecter loi boobu noonu day commencé par ñu respecter législation yi fi nekkagum entre autres le domaine public maritime entre autres le code de l'urbanisme entre autres le code du domaine de l'État voilà kon Babacar euh, Sylla ñu ngi lay euh, remercier ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. jërëjëf madame Moreau ñu ngi lay sant bu di remercier également seen rédaction. voilà ñuy fàttali ni Babacar Sylla yow yaay coordonnateur au plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement di Planète merci beaucoup pour la disponibilité. merci à vous.